établissement Mbaye Frère soxla wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15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 Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. mooy xalaatu jàkk jumaa ji tey ci làmmiñam la njëkk a génne ñu xalaat ko ne ñi koy def fii ci buy Masaalikul Jinaan waaye bañ ko seetee ñu gis ne foofa dafa xat. ba du fa mën a nekk li ñu bëgg lépp mënu fa am ñu door a am pàkk bi yàlla dogal bi fi Serigne Saliou jugee Serigne Mouhamadou Lamine Baara Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa Cheikhul Khadim bi njëkk ci ay sëtëm mooy ki nga xam ne moo daal di jël liggéey bi moo teg première pierre bi moom Cheikh Mouhamadou Lamine fii ci Dakar taxaw ci taxawaay bu am solo moom itam amoon ci yéene lool keroog bi ñu ko njëkkee wax rek ci saasi moo njëkk a fab téeméeri million daal ne man tàmbali naa kon kooka amoon na pas-pas amoon na yéene ju ba ni sunu borom dogalee li mu dogal lépp teewul pas boobu mu ngi ci moom bi fi jógee jàmbaar ju mag ñëw di Cheikh Sidi Makhtar am yal na ko yàlla dolli leer muy koo xam ne jëfkat la waaye doon toon waxkat di ab suufi bu mag fab liggéey taxaw ci taxaw ci taxaw ci ba liggéey bi egsi sori lool ba nga xam ne daanaka rek mott li moo ci des Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam moo doonoon jëwriñ ji ca njëlbéen ga ba fi sëñ Saliou nekkee waaye mooy jëwriñ ji bi fi ah, Cheikh Mouhamadou Lamine nekkee waaye mooy jëwriñ ji bi nga xamante ne ngi fi ba nii mu toogee jataayu Cheikh Ahmadou Bamba tey lépp nekk ci loxo taxawaay boobu nag tey jii yàlla eggale ko ci loxoom moom ci boppam ñu ñaanal ko yàlla mu eggale ay naalam yu bari ndax naal yi mu eggale yéene bu egg baax ci réew mi dana baax ci diine dana baax ci jullit yi kon ñi ngi koy ñaanal yàlla loolu moom nag bi ñuy ubbi jumaa ji eh, dénkaane yu am solo yu mu dénkaane mooy dafa wane ne jumaa ji di eh, yàqu tabax la waaye li koy couleur mooy xam-xam xam-xam mooy couleur jumaa ji ndax jumaa bala caa nit a mën a dugg mën caa def la mu laaj ak xam da jiitu loolu nag mu ne kon yabal euh, amal na commission boo xam ne waa Touba ak waa Ndakaaru ñoo ko bokk muy commission scientifique bi nga xam ne taxawal na ko moom ci jëmmi boppam joxe ci ndigalal boppam loolu ñu liggéey ba defar document bi ngeen gis nii tey muy document boo xam ne mboolem lu ñu fi war a def rek li tàmbalee tey ba alxemes lépp mi ngi ci biir kon mbokk yi ñii nga xam ne ñoo war a def waxtaan wi tey wax nañ leen li ñuy waxtaan yi wax nañ leen ko mooy tasawuf ni mën a defare nit tasawuf ni mën a defare nit loolu mooy li nga xam ne moom lañuy ñuy muy lu am solo lu ñu war a déglu ci jamono bu ne waaye rawatina nag suñu jamono bii jamono bii nu nekk nga xam ne mën nañoo wax ne tasawuf dafa toll ci diggante bu jafe jafee boo xam ne ñi nga xam ne ñoo ko téye ak ñi nga xam ne dañoo bëgg bu ko teg fee ñoo ko seq tey te loolu it muy loo xam ne yàgg na lu tey xeex boobu du tey yàgg na bu ngeen xoolee sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu ñi jàng Masaalikul Jinaan gis nañ ni xeex bi booba la woon waaye moom lam ko wax lam ca wax lépp mooy dafa wane ne ñii dañoo réer rek ñi ko noonu dañoo réer rek dañoo xamul rek wa jahilu wa yooyu la wax ci biir Masaalikul Jinaan te loolu mooy li leer nañ mooy ñàkk xam tasawuf moo tax ñu di ko ŋañ moo tax ñu di ko attaqué waaye loolu lépp insha allahu taala dina leer nañ ci mbokk bi nga xam ne moo fas yéene def waxtaan e man nag bëgg naa lool ci kii def waxtaan bi tey ndax waaye juróom danoo ànd ci lu bare bare bare mu doon borom xam-xam bu mag di sëriñ Moussa Mountakha Moussa Mourtada Cheikh Fati Fall ñu ànd ci liggéeyu Cheikh Mouhamadul Mountakha bii nga xam ne moom la tàmbali depuis 1975 ñu ànd ko ak moom jëmm jooju yor école bii nga xam ne moo nekk Thiès doon nag gëstu kër bind bindkat waxtaankat boo xam ne ah li mu ëndee gunde ci yoonu murit am na solo lool muy téere boo xam ne ñi nga xam ne ay gëstukat la lañu yombalal na leen lu bari ci seenub liggéey yàlla dogalit moom njabootam gi tey yàlla dimbale ko muy lu kiimaane mooy liggéeyal yàlla rek moo am solo ba mu ko fi bàyyi booba tuuf tànk la li xam ci moom sax bariwul waaye yàlla dimbale ko moom mu góorgóorlu jàng ba xam ba toppatoo téere boobee ak fu mën a ne ba wëlbatiku dajale ko bañ mool ko tey jii ñépp ñu ko jariñoo loola nekk loo xam ne kii maa nag suñu la waaye ku jëf yàlla fay loolu day tegtale rek yëf yi du ay làmbatoo ki lijjanti pas-pas rek la pas-pas képp la coow li li muy bari bari ñi amul pas-pas du ñu mujj fenn du mujj ci lenn du leen fàttalikooti sax ci seen dund waaye borom pas-pas yi nag seen tur dootu génn àdduna mukk ni borom bis bii nga xam ne mooy ak Cheikh Saliou Mbacké doon aalim doon mutasawif doon boroom xam-xam bu xóot ci wàllu xam-xam ci wàllu gune ñi nga xam ne dinañ ci waxtaan incha allah mu ci egsee dinañ ci wax lu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo ki koy defal modérateur modération bi di xale waaye di ku baax di ku bari xam-xam eh, muy maam ma sëñ ma saxeer mbay di sëtëm waaye di borom xam-xam mooy secretaire général bu institut islamique moom it mooy def modération bi kon ñaari nit ñoo xam ne biñ leen tànnee gis nañ ne lii ñuy wut ci ñoom ak liñ bëgg ñoom danañu ko mën bu baax baax baax baax kon ñu ngi ñaan mbooloo ñi ñu ànd ak déglu ak tekk ba mën a jariñu ci li nga xamante ne mooy thème bi nga xam ne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 وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي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 Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. établissement Mbaye Frères soxla wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15.